non ba mu ci niki alxames ca bañ doon amal ab procès ci diggante Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang kenn ki nga xam ne mooy layel Ousmane Sonko di maître Ciré Clédor moom nag dañ ko yóbbu ca urgence nga xam ne rek mooy suma assistance moom la gis ne daal wérgu yaramam maytu ko woon rek mu daal di fekkee li nga xam ne bi ginnaaw mi nag ci lañ ko daal di évacuer ni ki euh, gaaw gi fa nga xam ni mooy euh, France loolee nag ginnaaw ba mu amee ñi nga xam ne kat ñooy sayt ak ak yelef doomu aadama yi lée ñoom daal ña ngay dankaafu ñi nga xam ne ñor wàllum kaaraange gi ba tax na ñoom kat ña ngay ñaawlu doxalin nga xam ne gis nañ ko ci Ousmane Sonko ak ña koy layal ginnaaw ban gisee ne daal lii kat moom dafa ëpp ci gaz lacrymogène bi nga ko moom ci benn moom nag jaar na fa nga xam ne mooy clinique Sami waaye nag fa nga xam ne fa la Ousmane Sonko nekk ci noonee daal ma ngay sàkk ñu ubbi akub enquête ci gis na daal jaay doole gi nga xam ne moo am ci Sénégal te gis na loolee tegul ci yoon keneen koo xam ne tey yëkk nay kàddu di Alioune Tine di njiitu Africa Jom Center moom nag ma ngay baral woote gi de rikk waaye ñi nga xam ne kat ñooy nguur gi daal war nañu xoolaat seen doxalin waaye tamit mën cee waxtaan na ci gaaw gii ba tey moom ki nga xam ne mooy Alioune Tine ma ngay sàkk ci njiitu réew mi mu autorisé ñu évacuer ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ndax gis na kat wér-gu-yaram moom ma nasax na lool